واعلموا أن الله مع المتقين ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل فيما ورد عنه الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ثم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه أكثر من سبعين مرة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ثم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamuun qaala taala man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara haza wa salawaatu llahi wa salaamuhu alayka ya xayra xalqillah fa mablagu lcilmi fiihi annahu bashar wa annahu xayru xalqillahi kullihim aw kama qaal wa sallimu tasliman kacira walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم bokki jullit gannaaw buñ sant yàlla tabaraka wa taala ci xiiwal yum ñu jox mu mel ni ñu ngi ci biir nawet ndox xaw a manqué yan nañu yàlla defal ndox ndoxu jàmm bu ndox miy wàcc yal na doon ndox mu sedd guy yàlla bu mu ànd ak ngelaw yàlla bu mu ànd ak tempête yàlla bu mu yàq te yàlla bu mu ñu yàqal te yal na doon taw boo xam ne dañu jëriñ mu doon nawet boo xam lépp luñ ci jox yàlla barke lañu ci mu mel ni ci depuis ay ajumaa ñu nekkoon ci hijra nabawiya al sharifa ay mbokk wuutu fi mottali ci lu bëree bëri ci nit ci dundam ca na muy dundee ci ay bokkam ca na muy dundee ak boppam waaye na muy dunde digganteem ak boromam mu mel ni kon dana doy sëkk ñu ne hijra annabawiya asharifa li nga xam ne moom la wund lépp mooy nit ki gàddaay gàddaay bi nag imma nga gàddaay ci jëf imma nga gàddaay ci tànk imma nga gàddaay ci ay wax wala boog nga gàddaay sax ci noppi mu mel ni sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa ba nga xamee ne nit ñaa ngi dem di ko toppi ñii dem ngir jàppale ko ngir dimbale ko ngir ak bokk ñii dem ngir jàppale ko ngir diine ñii gis ni diine lislaam bu bees la boo xam ne buñ ci jàppale am na ay noon yoo xam ne dañ leen faagaagal ki ko indi te bu ñu faagaagalee ki ko indi mun na am ñu faagaagal li mu indi ñu dem jàppale ko moo tax mu ne allazina wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabaau nuura allazi unzila maahu ulaika humul muflihun jàppale ko dimbale ko ci lépp loo xam ne ngànnaay la wala gàllaaj sax wala am am la wala man-man la wala kattan la rawatina ñi nga xam ne ñu ngi la fekkoon ci madinatu munawwara ci yasriba muy al muhaaj al ansaar ñooñu nekk ay muhaajirin ña la nekk al ansaar ansaar yi ki nga xam ne moo ci gën a fës mooy abu ayub al ansaar yi mu mel ni kon su fekkee ne da ngay tënk hijra nga ne loolu mooy jëf ji ak ñi ànd ak moom waaye nga xool ba mbir ma demee ba yaatu mu am di jóg ngir dem lan la ñu wuti woon soxna jabar tool alal ay terrain ak ay kër ndax mënoo ko am Makka Mukarrama nga ne kon xaaral ma dem wala amoon nga ko waaye boog duunul te nooyul nga ne xaaral ma dem topp yonent bi ba xabaar bi agsi ci Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa fa man kaana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaana hijratuhu ila dunya aw imra'atin tankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay kon ki nga xam ne moom mooy gàddaay ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yàlla mu ne noonu loolu la ñuy am ñii ñëw nag pour ne dégg nañ ni ñu ngay may ansaar yi muhajirina yi ay soxna ak ay tool ak i terrain dinañ jox alal ci commerce ga duun na ñu ñëw ngir loola mu ne ñooña loolu la ñuy moom loolu la ñuy am bokk yi mu mel ni kon loola leeralal nañu suñu dund kon yow mi nga xam ne yow yaay gàddaay jóge ci dëkk dem ci dëkk na nga fexe ba ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon sabaquuna bil iman ñooñu jiite woon ci diina ji am nuñ ko rafetalale minhum amsal Cheikh Ahmad Bamba xamal Haj Malik ak ñu bëree bari nga xam ne fa nga juddoo fa nga nekkoon il faut nga jóg nga gàddaay dem feneen ngir sos fa ngir defar fa ngir defaroo fa ngir defar fa sa addina ak sa àllaaxira ndax lan laa tansa nasibaka min ad wa ahsin kama ahsana allahu ilayk ba ñu demee ñoom itam ngir toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dem dem leen di bay ci commerce bu baax gu leb yor ay alal bu dul jeex ay milliards yi milliards bi buñ lay wax ci jamono bi la ñu amoon ci alal ci xaalis ci ngurdu danay jaaxal waaye axakañ booba jamono boobu loolu mooy li dox booba jamono boobu am na noonu bu mag mu fi nekk muy tubaab bi la muy gis mooy fu nooy fu baax rek mu jël lu bokkut rek bokkatu ci mu mel ni kon gàddaay bi ñoom gàddaay lañu defar seen diine sos ay daara sos ay nit defar ay nit ñii ñu tuddeen ay muqaddam ñii ñu tuddeen ay cheikh yoo xamante ne ñoom ñoo defar seen ginnaaw ngir ñi ñëw kon bu ñu dematee ba sayyidina wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gàddaayam ba kon jullit ñëpp war na cee mën a jëriñu ku mënta gis ba ca kaw nag xanaa nga gis bi la gën a jege maanaam ku mënta àgg ci hijra annabawiya xanaa kon nga xool suñu mag yi lan lañ fi def yar ay nit ay junne junne nit xotti àll bi defar ko mbay mi ñu dox nga fexe nag bi ñi nga xam ne ñoom ngay bokk yi te nekkuñu fi nga yar leen won leen diina leen la laaj fa ñu nekk di dem di jóge fu sori di ñëw nga defar kenn mu nekk fa nag di defaraate di defar ñooñu noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon waaye bu ñu demee nag ba jamono agsi fii am na buñ ñu bàyyee woon mu ne almuhaajiru man haajara ma naha allahu anhu mu ne ki gaddaay dëgg-dëgg nag noo dem fenn amoo fenn sa fit ñi mu wut ndax gaddaay il faut mu ànd ak fit il faut mu ànd ak yàlla rek a tax nekkul jóg rek ne damay gaddaay déedéet dafay nekk ni yàlla rek tax yàlla kese moo tax nga bu ko jaamu sa borom bu ko ñëwee sa diine amoo foo ko defee nga gaddaay lii mooy gaddaay waaye kantan fu mu neexee rek déedéet mën na nekk ci jamono bu neex waaye mu doon ci jamono boo xam ne itam def nga ko te yàlla rek a tax ndax su fekkee ne yaa ngi ci dëkk boo xam ne mënoo faa tedd mënoo faa am teranga mënoo faa defaroo mënoo faa defar nga gis ne réew mu ne su ma fa defee dinaa am lu ma mën a def nga dem ci réew mooma loolu mooy yóbbu yenn xale yi ñuy dem di dugg ci gaal yi bay dee ci àll mu jaral leen koo gis mu jaral ko bakkanam rek laa laajal am na lu tax waaye koo gis jaral ko bakkanam kooku dara gis nga ki nga xam ne mbir da koo su da koo da koo ñor kooku bakkanam la ci teg mu tax ñu ne ka nga daan doo démb di ko dàqee bés boo ko dàqee mu taxaw jàkkaarloo ak yow yow mel na kuy romb romb lu nga daw ndax nga xam ne am na lu nekk ci ginnaaw am na lu ko jaral tey démb jaralu ko won waaye tey jaral na ko bàkkanam noonu yi ngay xamee diggante ki bëggati yàlla rek tax wala ki nga xamante ne sës na même bu nekkee ci mbon sax bu sësee day jaay kon bu ko defee. ñu mu motandiku lépp loo xam ne bakkan la loolee nag mu dem ci kilifa ki yor diine ndax loolu bari na fa lool bakkan ki yor nguur ndax loolu bari na fa lool moom bakkan ki nekk ci politique bari na fa lool ci bakkan nga gis ne léegi àdduna bi jamono bi ni mu demee léegi lépp nekkatul maslaha ngir leen yàlla kese waaye maslaha ngir am am maslaha ngir nguur maslaha pour nekk buur maslaha pour am ay milliards maslaxa pour am tur maslaxa pour siiw yooyu yëpp taxuloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote te taxuloon tam mu jël lii nga xamante ne moom mooy muhaajir wala mu nekk ànd ak ay ansaar ya kon bu ko defee aaya alquran bii di wax ne wattaqu fitnatan su fekkee da ngaa bëgg a nekk ci réew mu neex il foog nga moytu fitna su fekkee da ngaa bëgg a dund dund bu neex il foog nga moytu fitna fitna ci lan lay jógee ko ci napp ci dóor ci gaañ ci tër ci tëj ci yàq ci yàqal ci bañ a xool yow intérêt nit ñi waaye nga xool sa intérêt bés boo ko defee rek yaa ngi sos fitna mu tax mu ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika hum zalimun wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika hum alfasiqun bële mu ne kaafirun lan mooy kaafir mooy ku weddi li yàlla indi ku weddi li yàlla teral ci weddi li yàlla wàccee ne na ngeen attewoo lii kan mooy kàccoor ki nga xamante ne xam na ko ba noppi mu mu tëg tànkam pour dem ca ngir lan moom saay-saay la xam ne lii baaxul de waaye comme bakkanam moo ko ko laaj rek dana ko def ngir boppam donte dafay fagaagal ay nit walaayka mu zalimun mooy tooñkat kan mooy ki tooñ mooy ki nga xamante ne li mu gis ci sa morom bëgg na ko waaye xamul naka la koy amee mënu ko am te jaralu ko mu ñàkk bakkan wala mu ñàkk wala mu def coonoom ca la mu waroon a am mu dëkk ci kaw nit wax ko mbaa mu def ko mbaa itam mu am lu mu tudd ci moom kooku mooy tooñkat tooñ nga te waroo tooñ yow kàccoor nga te waroo koo doon yow yéefar nga ndax yi nga xamante ne moom la yàlla wàccee ci àddina wàcce ko ci njub bañ nga ko moo tax mu ne su fekkee dem ngeen ba mbir yi jaxasoo seen loxo ngeen dem ba xamatu leen fu ngeen jëm mu ne kon fa rudduhu ila allahi wa rasulihi in kuntum tuminuna billahi wal yawmil axir kon su fekkee ne tanazo dafa am in tanazaatum fi cheyin mbir mi ñëw na ne xëtt na jonn ku ci nekk ne nii la ku ci nekk ne fii la ku ci nekk ne nale nga daal di xam ne ah kon lii nañ ko delloowaat ci li yàlla wax boo delloo ñun suñu société sénégalais ni nga xam ne la ñuy dundee ci wàllu politique wala di ko dundee ci wàllu tarixa wala ñu ko dundee ci wàllu mouvement wala ni ñu tëralee suñu àddina boo moytuwul tuuti rek nga foog ne est-ce que nit ñi dafa am lu leen di yóbbu wala dafa am lu leen di puus bi maanaa tey bu dee ci nguur nguur dina la jaral nga tëj nit te waroo ko tëj dina la jaral nga yàq nit te waroo ko yàqal dina la jaral sa maslaxa bopp yow kenn dong nga def loo xamante ne bi ñu ko defee ñëpp tiit ñëpp ragal ngir lan yow nga mën a jàllale say masaalix ci li nga bëgg wala boog yow nguur nga defee loo xamante ne li nga xam ne biñ koy def wóor na leen du nii waaye yow sa maslaa ci loolu la nekk parce que am na leneen looy ragal ëllëg wala ba am na leen loo ci bëgg ëllëg bi maanaa am na loo bëgg lii dala koy yàqal wala am na loo ragal lii day tax nga dugg ca loola ko nga ne kon xaaral ma def nii mu jaral la nag nga tooñ mbaa nga yàq mbaa nga jëfandikoo lii nga xam ne mooy justice ci biir réew ngir ne justice boobu moom moo def lii waaye yow état defuloo yii yëpp ndoon loo xam ne lu ñu war a war a jéem a bàyyi xel la kon su fekkee ñëw nga ci nguuru Sénégal wala nga ñëw ci askanu Sénégal lan la ñu war a a wax wala lan la ñu war a laay biir ci li nga xam ne mooy xew kenn ku ci nekk indiwaat xelam xam ne nguur jarul nga tooñ bëgg nguur jarul nga yàq bëgg nguur jarul itam nga def naka su dul loolu ndax bés dina ñëw yow na nga doon yóbboo nit ñi ñu ngi leen di suul bés dana ñëw ñu gas la suul la. ana lan mooy li nga xam ne moo lay defaral këram sa jëf ana lan mooy li lay yàqal këram sa jëf kon jëf yooyu la war a nekk yoo xam ne war na koo xool bul tuddee woo justice bul tuddee woo doole bul tuddee woo man-man bul tuddee woo kattan bul tuddee woo alal waaye nga tuddee woo ne yàlla de lépp lu mu dogal noonu la waaye lii nga xam ne moom laa toog ba askan yi falee ma ko nga jéem ko def ni nga ko war a defee boo ko deful ak kum mënti doon ci kaw suuf yàlla ne bés dana ñëw danaa leen laaj yéen ñi nga xam ne jiitu woon réew yi yëpp man laaj leen ban bés lay doon yowmal qiyaam bés bu muy laajte li manil mulk li manil mulk li mulk mu di ko laajte pendant juróom-ñaar fukki junne at te kenn ñëmul topp gis baa ju jóg rek ne yàlla kii moo doon suñu président kii moo doon suñu buur ngay faxas ngir dégg li nga dégg kàdd boobu nga faxas sa nopp ba foddu bi dagg noppi bi dagg wadd sa kanam ngir lan la nga xam ne mooy responsabilité bi nga xam ne moo nekkoon ci nguur ci bis boo xamante ne yawma yafiru l maru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mriin minhum yawma idin sha'nun yughni ñu toll ci jamono boo xam ne nit ñi léegi dëgg mënatuñu koo wax ndax lan yaa ngi ragal a wax ñu ne fay la far yaa ngi ragal wax ñu ne fay la far yaa ngi ragal a wax ñu ne kii kii la bëgg tax na bi ñu bëree bëri ci wàllu diine ji wala ñi nga xam ne ñoo war a wan nit ñi diine bi l'islam bi wan leen dëgg bi ñëpp a ngi ne tekk tekk tekkaaral te ñu mujj fitna boo xamante ne dara dara dara ne la wagu ci ñu foog ne mbir mi noonu lay demee rek mu neexee noonu wala mu demee noonu mu jeexee noonu déedéet yàlla ne man yaamal mithqaala darratin xayran yarahu loo def ci lu baax dañ ko gis loo def ci lu bon dañ ko gis kon nag su fekkee ne loolu am na yow bi ñu koy gis jamono ko gis am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci ñoo ne danañ ko gis keroog encore loolu mooy li ci métti lool mu tax mu ne laa tusibanna wattaqu fitnatan nañ ma tugul fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa ñi tooñoon bés bi nga xam ne tooñ baa ñi daanu seen kaw du yem seen kaw dafay demaale làmb ñëpp kon kenn ñëpp wax waaye déedéet dana am loo ragal wala maslaxa boo xool benn enveloppe ñu lay jox wala alal buñ lay jox wala maslaha boo am ci nguur wala maslaha boo am ci sëriñ bi wala maslaha boo am ci ki nga xam ne moom nga war a wax dëgg wala maslaha bi nga xamante ne moom ngay ragal nga ñàkk ko ci saa yoo xamante ne wax nga dëgg fekk ne déedéet ataxshawnahum fa allahu axaqu an taxshahu in kuntum muminin ndax da ngay ragal nit da ngay ragal yow li ngay ragal mu ne xanaa gisoo yàlla ataxshawnahum da nga leen di ragal fa allahu naka yàlla axaqu moo gën a yàlla an taxshahu ngeen ragal ko in kuntum muminin bu ngeen bëggee bu ngeen gëmee yàlla waaye déedéet kenn ku ci nekk sa maslaa fu mu nekk rek nga daal di fa dem buñ la ne kii ci pouvoir la nekk te am na lu nekk ci opposition nga daal di ne kon xaaral ma am nu ma def ba kenn du xam ba kenn du ma nga ànd ak bukki yi raas li nga xam ne mooy lëndëm bi bu ñu ne pouvoir itam nga am doo def pour ànd ak opposition ngir lan da ragal buur wala nga ànd ak keneen ngir bëgg a wax buur dara nga xam nag ne yow da nga bokk ci nguur bokk ci buur doon buur lan moo tax ndax bu fi buur nekkee yow mii yow yaa ko voté ba mu nekk fi kon saa yoo xamante responsabilité ñëw na na nga xamante loolu la lay laajee ëllëg su boobaa itam nga xam ko dama bëgg a wax ne saa yoo xamante ne yow bokk nga ci sànnil nit carte mu nekk njiitu réew wala lu ñuy sànnee carte pour kooka jiite benn boîte saa yoo xamante ne kooka def na la mu def yow da nga ciy bokk su defee lu baax am nga ca bu defee lu bon am nga ca su fekkee ne président de la république la yow yaa ko votalal nga bokk ñu ko votalal saa yoo xamante ne juum na def lu bon yow ci nga bokk kon sa carte bi xamuñ ki nga koy jox su fekkee ne benn boîte la wala benn société la ñu ne wala bon assemblée nationale mu ne nañu voté lii ña nga xamante ne ñoom ñoo voté loi booba loi bi bu fekkee ne dafay yàqal réew saa yu nga jot sa bàkkaar su fekkee ne loi buy defar la saa yu defaree yow nga jot lii nga xam ne moom mooy mooy lan kon bu defee lu bon nga am ci yu bon yi bu defee lu baax nga am ci yu baax mu mel ni jumaa ji ngay julle ki nga xam ne moo ko fi def def na ko fi ba pare dem toog ko ci téeméeri atam demul fen waxul leen jaamu yàlla am la wax waaye gis nga bu ñuy jullee ajuma ba pare rek dañuy daal di xaaj kenn ku ci nekk la nga am ci tiyaaba ñu jël wàllam yóbbante ko ko mu nga ci digg àll ba ci bukk bukki fa la nekk toog nekk ci ruqam yow ngay wax di wor di fen di tappale di wax dëgg di def lu baax nga ñëw ci jumaa ji julli bi ñu jullee pare sa yu baax yooyu ñu jël ci sa wàll wàllam jox ko ko yóbbante ko est-ce que ci moom la yem déedéet képp ko xam ne bokkoon na ci ñi doon tabax jumaa jii la nga joxe ca benn dërëm wala nga doon bu maçon yi ne jaa ngeen jëf wala nga yëkkati ndox mu sedd jox ko maçon yi wala nga yëkkati sa wala sa nga jox leen ko saa yu nit ñi jullee jumaa yi patam nga daal di yëkkati ñu daal yëkkati sa bos joxaat la ko naka noonu demal nga tabax hôtel bu ñuy moyee yàlla wala bokk kër goo xamante ne dañ koo def ngir mooy yàlla wala kërug noppalukaay wala sax sa kër gis nga boo ko defee ba noppi képp ku fa jaamu yàlla nga am ca waaye gis nga su fekkee def nañ ci lu bon lépp luñ def ci lu bon rek nga jot ci sa yoon nekku ci nag nga naan waaw man sama kër dama ko luye rek kon ku luye loo def yaa xam déedéet yëbul foofu ku ko wax daf lay nax lu bon li ñuy def ci kër gi ñuy luye pour nit def lu bon ka ko tabax da ciy am yow da nga ciy am yow mi ko moom yow mi ko luye da nga ci am yow courtier bi indi nit ki bu mu def lu bon da ci am yow nga am ci sa wàll ku góor ki am ci wàllam ku jigéen ki am ci wàllam bu àllaaxira jotee nag yàlla ne kenn ku ci ne danaa la fay naka ñun su fekkee ne lu baax la nga luyee benn kër nit ki dafa wàccee kaamil alquran di fa ñaan def istixfar salaatu ala nabi jàng xasaayit def ay wasifaam kooka itam naka noonu ñu tabax kër ga yëpp ak bërëm kër ga kenn ku ci nekk saa yoo xamante ne pare nañu ñu jël sa tuyaaba jox leen ci kon nag na wóor na leer ne li nga xam ne moom lañu ci àdduna bii ñu nekk dara du ci dëgg lépp ay tappale la lépp ay fen la lépp lu ay war la wa yuhibbuuna almaala xubban jamman kalla izaa dukkati al ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى kon nañu moytandiku kenn ku ci nekk nga moytandiku ci nga amanteel affaire su fekkee ci tariixa la bu nangu mukk nekk ci tariixa bi di saboté beneen tariixa yow boo waxee nekk tariixa bi moo gën kan moo la ko wax noo ko xamee ana yan minwaal ana yan misaan nga jël pour xam ne tariixa bi moo gën bii su fekkee ne mouvement la nga ne suñu mouvement moo gën bële ana fan nga ko teg ba ne bii moo gën bële ana fan nga teg ba wax ne parti politique yi PS moo gën wala APR moo gën wala PDS moo gën wala PASTEF moo gën wala wala wala LD wala wala yu yëpp yow ana fan nga sukkandiku ba wax ne bii moo gën bii kenn ku ci nekk rek ne man la man la ñun la ñun loo gën la ñun loo gën baax la ñun ñooñu ñun la ñel yàlla ne yéen ñëpp nag laay waxal ngeen moytandiku bés ñëw kenn ku ci nekk ñu laa dija baat ya nga doon wax te mënoo koo tontu mu tax mu ne laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanaabazu bil alqaab bi'sa al ismu al fusuuqu ba'da al iimaan wa man lam yatub fa ulaa'ika humu zaalimuun kon su fekkee ne yow da nga ne yéen a gën nga def ay pexe yu tax kenn du fi ne wala kenn du fi taxaw wala kenn du fi toog yàlla ne man maa ngi lay xaar fi ma leen di xaar gis nga kenn ku ne bés dana ñëw ñu ne noyyi ba dagg na ci le xalif général da nga dee ci le président da nga dee ci le ministre da nga dee ci le chef d'opposition da nga dee kon nag kenn ku ci nekk na jël responsabilité boppam ci dundam digganteem ak moroomam digganteem ak naataangoom waaye digganteem ak boroomam soo ko defee rek da xam lan nga war a def ak lan nga war a def te kenn ku ci nekk nag xam na kenn ku ci nekk xam na li ngay dund xam na li sa morom di dund xam na li yàlla laajte kon loo ci def rek yow yaa ko tànn sa bopp rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa al abrar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin allahumma rabbi habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من القانتين واجعلنا من الحافزين واجعلنا من التائبين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العلام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد